di sant yàlla bu baax ci période yu am solo yi nga xam ne génn nañ ko te mooy jumaay Masaalikul naan te seriñ tubaa mu bokkoon ci ay naalam Cheikh Mouhamadul Mountakha àggaleel ko ko ginnaaw bi nga xamee ne jaar na ci loxo ay ay kilifaam ba egsi ci moom ñoo ngi koy sant te di ko ci ndokkeel bu baax a baax. di sant mboolem jullit ñëpp rawatina murit yëpp ci pas-pas bi nga xam ne def nañ ko ba mën a taxawal taxaw taxaw taxaw lu am solo loolu te mooy jumaa joo xam ne mën na ñaar fukki milliards yu top lool moy wone ne murid yi lépp luñ jéem rek man nañ ko kon yalla na yalla gëna tek loxo ci ñom ci barke Cheikh na Ahmadul euh leral yi nak bokku na ci sante gi ñi sante président de la république muy monsieur Macky Sall nga xamne moy sun leader ñu bokk ci partem yalla dogal muy nit ku bax momit ku yiw ko xamne ne euh, yaakar na nit ñi nit ñi nak ñing koy xam ci ndax mom de talibé Serigne Touba la ku ko gëm te yaakaar ko ndax loolu man moo ma ko waxal boppam ne ma sa bàyyi sëriñ Modou Mamoun Niang keroog bi ma sëriñ Mbacke soxna loo di yóbbu ci sëriñ Saliou moom la ma boole loon moo ma yóbbu loolu it sama wayjur di sëriñ Modou Mamoun Niang confirmé waatal ma ko xamal ma ne ma keroog bi muy dem ci sëriñ Saliou man la ko sëriñ Mbacke boole loon kon am muritam la ak muritam lu leer nañ la murit nak mooy irada, ku bëgg te yàlla rek tax moom dafa bëgg sëriñ Touba di ko liggéeyal ak muritam nag bokk na ci li koy confirmé waat mooy tey jii li nga xam ne mbir la moo xam ne jafe woon na àdduna bépp mboolem président yi nga xam ne ñoo xam Sénégal président africain yi ñëw nañ fi jéem ko yàlla mayu leen ci ndam waaye keroog bi ko Serigne Touba bëggee Cheikh Mouhamadul Mountakha moom la ko yàlla may defal ko ko muy digganteem ak président de la République maître Abdoulaye Wade muy lu jafe woon te yomb Serigne Touba lool. waaye ba mu ko defee gis ngeen ci xol bu leer la ko defee doon ku gëm ku yaakaar ku wóolu def ko ni ko Sëriñ Tuubaa bëgge woon kon yaakaar naa ne tey jii jot na sëkk ñu xam ne diggam ak Tuubaa euh, diggam ak Sëriñ Tuubaa leer na nañ wax li jafe woon adduna bépp jafe woon mboolem président yi jafe woon ñi fi jiitu woon ñëpp moom li ko Sëriñ Tuubaa bëggee ci moom baat ak tontu la kon kooku mooy président de la République ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci biir camp mbokk ci parteem moo ngi koy ñaanal ni nga xamee ne sagale na ko Sëriñ sagale ko boppam seigne touba mom lepp lu way jëf jëm ci jëm ci mom sa bop nga ko defal ndax ndimbalam mo la gàttalu motax nga man ko waye nak ci ci ci barkeb loolu it yalla na ko yàlla ba li mu yene yalla dogal ko sotalal ko ko mu soti ko waye it yalla def ci rew mi jam ndax rew mo xamne ne pétrole mi ngi am ñu fi tuddu gas jam rek mo fi mo fi xaj kon yalla yalla def ci jam mo xam opposition la mo xam ku nek pouvoir la li ñaanit dialogue bi nga xamne yalla dogal na mu wote ko te ñu am ci yaakaar moom it yàlla na ko àggal ak jàmm te ñëpp wuy si ko te dialogue boobu jur jur jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj Sénégal mën a ndax réew mu am Serigne Touba yaakaar na naataange rek moo fa mën a am ak jàmm di rafetluwaat bu baax a baaxee nag doxe wi nga xam ne parti bi mi ngi koy dox fii ci dëkk bi di tuub ci Touba wala département mbacke ndax ku ne xam na ne parti bi xawoon naa compliqué pour mu dox waaye bi yàlla dogalee Cheikh mbacke ngay ne di sunu bokk di sunu xarit président jiital na ko ci département bi gis ngeen environnement bu bees bi fi am parti bépp retrouvé waat nañ xam nañ ne am nañ leader bu mat sëkk ndax ñi fi jiitu woon ñëpp dañ doon ndax président rek liggéeyu luñ ko fi waaye tey jii moom yàlla dogalee lépp jaar agsi ci loxoom tey gis ngeen ni mu retu ni mu ni mu ni mu dajalewaat famille bi ñëpp doon benn boo demee këram tey mboolem koo koo bëgg a gis wala koo ko gëj a gis boo demee da ko fa fekk ñi doonoon ñi nga xam ne daa am lu doxoon seen diggante ñëpp doon benn ñëpp topp nekk ci ginnaawam loolu nag mooy tax parti bi mën a dund mooy tax parti bi mën a am li mu bëgg kon moom it ñu ngi ñaan président de la république mu gën koo bàyyee xel mu xam ne nit la koo xam ne moo leen personnalité yi ñuy wax yëpp aju na ci moom bu dee doon doon ci sëñ bi sëtoo na ci sëñ Tuubaa ci wet yëpp bu fekkee am njàngam mat na ko sëkk bu fekkee personnalité mat na ko sëkk kon kooku mooy kii département bi soxla woon ñoo ngi ñaan yàlla defal ko jàmm defal ko ndam ci liggéey bi nga xam ne président de la république euh, dénk na ko ko ñun ñu ngi fas yéene nekk ci ginnaawam di ko jàppale ci biir ak bit incha allahu rabbi ñun nag ay euh, jeune mara bu lañu woon yoo xam ne depuis 2011 ba léegi ñu ngi dajaloo woon doon benn doon benn say mën naa cee lim ñu bëree bëri diggante Touba ak Daaru Musseek Daaru Xuddoos wala Daaru Salaam mbooloo lañu ñu woon moo xam ne dañoo takkutoo woon àndoon ak moom ca ba mu metti te boobu ba léegi mosuñu ko wan ginnaaw ndax lañ doon séntu ci moom lépp ñu ngi koy gis di am yaakaar nag fi nga xam ne fi lañ bëgg Sénégal àgg fa yàlla may ko jàmm may ko ndam ba mu àggale ko fa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.